الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي الحمد لله نجي دل سوات di daje ci néegu borom bi di fas yéene jël benn bind ci wàllu fiq nga xam ni moom mooy leeral la rot ci alquran ak sunna ñu ciy dimbindikoo téere bi di arrisala bu ibn abi zayd alqayrawani rahimahullah ñu yegsi woon ci fanweereelu bunt bi ak juróom ñaar baabun fi ahkaami dimaai wal xudud mi ngi noonu mi ngi war a jël tey wa fi janinil xurra xurratu abd bu dee mool bi ma yor ci bu xonq bi day nekk ci page 96 ci traduction bi noo am sama rudaani bi nga xool cinq cent quatre-vingt-cinq noo am wa fi janinil xurra tey mooy dimanche bi vingt-quatre ci weeru safar ci mille quatre cent quarante-deux di dëppee it la onze ci octobre ci la nga xam ne ni moom mooy deux mille vingt su dee mbokk yi bokk nañu gis ñu jël suñu bind bu jëkk day wax ne wa fi janinil xurra bu dee ne ci ëmb gor janin mooy doom ja làqu ca biiram ba xurratu abdun ah xurratu abdun aw walida ku mel noonu dañ koy jox benn waxambaane mooy jaam wala mu nekk jaam bu jigéen day nekk jaam bu góor wala mu nekk jaam bu jigéen tuqawamu bi xamsiina dinaaran boo xam ne prime day nekk juróom fukki dinaar aw sitta miati dirham wala boog mu nekk six cent dirham wa tuurasu ala kitaabillah dañ ko donn ci ni yàlla tërale ci ab téeréem wala yarisu qaatilul amdi min maalin wala diya ki rey ca moo tey rey ga day du donn ci alal jawaaja bàyyi du donn ci diya ba muy joxe wa qaatilul xata'i yarisu min maali duuna diya ki rey ca teyul nag dana donn ca alal jawaaja bàyyi waaye du donn ci diya ba wa fi janinil ama min sayidiha bu dee ci ëmbub jaam bu jigéen te fekk ka ko ëmbal mooy sangam maa fi janinil xurra mooy la ñuy laaj ka nga xam ne dafa yàq biirub gor wa in kaana min gayrihi bu dee ne nag ka ëmbal jaam bu jigéen ba keneen la ko dul sangam fa fiihi ushru qiimatiha su boobaa dañuy xool ñaata la yaayam di jar ñu daal di joxe fukkeel ba mi ngi noonu mbokk kon bind bi day wax ci ki nga xam ni daa rey ëmb gisoon nañ ci li weesu ki rey julit dana joxe téeméeri giléem wala mu joxe junni dinoor bu dee góor bu dee jigéen mu joxe genn wàll ga waaw bu dee ne nag koo xam ne daa ëmb nga def ko loo xam ne tax na ba doom da nekk ci biir de su booba ñu ne da ngay joxe ab jaam muy góor wala jigéen boo xam ne day nekk juróom fukki dinaar dinaar bu nekk day nekk 4 grammes or bu teg 25 loolu boo ko doon xayma tey presque dana jege ay 5 millions ci suñu xaalis loolu la ñuy fay ci wàllu googe euh amma bu dee ne ki nga xam ne da nga loolu la wax mu ne nag di di diye boobee dañ koy donale ni ñuy donale miiras te jàngoon loolu lañ di dimanche passé mooy soxna si ëmb na waaj wala so beneen soxna yàq na ëmb bi la muy fay ci diya dañuy jàpp ba xale bi juddu woon dee nañ koy donni noonu la ñuy donni diye ba ki nga xam ne nag daa rey nit fekk moo ko tey ku mel noonu du donn ci diye ba bañ koy jox ba muy joxe du donn it ci alal ja masalan ci rey baayam wala ci rey doomam wala ci rey frère am ila axiri ku mel noonu du donn ca dara na doon diye ba la na doon alal ja waaja bàyyi la amma ne ki juum rey kum waroon a doon bàyyi la doom la frère la daa juum rey ko su boobaa dañ naan diye bi ñuy joxe moom yow doo ci bokk amma alal ja waa ji fàgg woon avant muy dee loolu moom dana bokk ca ña nga xam ne nii ñoom ñoo koy donn loolu lay wax ci wàllu googee donte ne it mi ngi wax ne jaam bu jigéen bu dee sangam moo ko ëmbal doom ba mu ëmb ku ko rey moo ko rey doomi goro yem amma bu dee nag moroomu jaamam la ca la ëmb ba jógee su boobaa moom dañuy xool la yaay jay jar ñu xool dixième ba moom la ka rey doom ba di joxe loolu mbokk moo aji ci wàllu googe lañ ci mën a dégg rek muy danger bi nekk ci yàq ëmb mbokk ëmb kenn du ko yàq lu dul ci dem ba yëg ni suñ ko yàqul yaay ji day loru waaye bépp ëmb boo xam ni am na ruux xaraam na ñuy yàq ko même bu doon tene ne médecin yi dañ ne bu juddoo day nekk handicapé bu juddoo day kaza wa kaza maadaama am na ruux dañ ko war a bàyyi mu judd képp koo xam ne nii dindi na ko ci lu dul ne dañoo ragal ne bu continuer day lor ndeyam ku mel noonu def nga musiba te ki yàq ëmbub jàmbur it mi ngi noonu gis ngeen lim war a joxe ca muy wane it ni jigéen ji ëmb ku ne war naa moytu di xeex ak moom ndax xeex ak moom mën naa profité gaaw a yàq ëmb bi bi ci xewoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari jigéen ñoo doon xeex kenn ki jël benn kur rek tëgg ko morom bi fekk daa ëmb doom ji génn dee ca la yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi woon atte bi na am mi ngi noonu buñ jëlee beneen bind mu ne wa man qatala abdan fa alayhi qimatuhu koo xam ne daa rey benn jaam lañu koy laaj mooy jaam bi lam waroon a jar mu joxe ko wa tuqtalu aljamaatu bilwaxid fi lxiraaba des na rey mbooloo bu dee dañoo rey kenn ca la nga xame ni nii mooy ay agression walxiila ak rey goo xam ne danga piège waa ji nax ko rey ko wa in waliya wa in waliya alqatlu baaduhum doonte ne lenn ca ñoom rek ñoo rey ña ca des reyuñu mbooloo ma yépp la ñuy boole rey wa kafaaratul qatli fi lqat'i waajibatun la nga xam ne mooy kafaara rey ga ci rey njuumte loolu day wareef la te mooy itqu raqabatin mu'mina mooy ñu goreel jaam boo xam ne julit la fa in lam yajid fa siyaamu shahrayn mutataabi'ayn su dee amul jaam mu woor ñaari weer yu tegaloo wa yu'maru bi zalika in ufiya anhu fi al-amdi fa huwa xayrun lahu des na ko digal ci loolu su dee ne dañ koo baal ca rey gum reyoon ci tooñ mu kaffaara day moo gën ci moom mi ngi noonu mbokk day wax ci ci rey jaam jaam maadaama société yi nga xam ne am na fa dañ koy jënd di ko jaay su dee da nga rey jaamu nit dañuy xool ñaata la jaam bi jar nga daal di joxe loolee loolu la ñu wax ci mazhab Malik waxoon naa leen ko ci njëlbeenu dars bi doon ne borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf ngir xadis ba yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam doon wax naan man qatala abdahu qatalnaahu ku fi rey jaamam dañ ko rey waaye bu dee li gën a siiw ci mazhab malik ak yeneen i mazahib mooy ki roy jaam moom diye bi rek lay joxe gannaaw ba it bu dee ni ay nit ñooy agressé attaqué benn waay ca àll bala ci dëkk bala attaqué ko rey ko su boobaa bu leen l'islam jàppee ñoom ñépp la ñuy rey na doon matoon nañu fukk ñoom ñépp la ñuy rey doonte ne ne kenn moo ko ca dóor balu fetal wala jaasi mu dee waaye maadaama mbooloo mu ñoo ànd attaqué ko ñoom ñépp la ñuy rey loolu mi ngi noonu amma bu dee ni mooy agression bokk na ci li ñuy tuddee ak alxila te mooy piège nit ki ndax rey mën naa am fekk da ngeen a xeex da ngeen am problème amma piège nit ki ba jekk ko rey ko lu mel noonu moom dañ naan même bu mbokk yi balee sax état da lay rey loolu mi ngi noonu mu bàyyi loolu wax ci du ñu tudde kaffaara waa ji dafa rey fekk tayul li mu rey ak kam rey kum mën a doon dafa war a génne kafaara kafaara boobu mooy mu goreel jaam boo xam ne jullit la bu dee jaamu yéeféeri du baax fokk mu nekk jullit boole ci encore woor ñaari weer yoo xam ne dafay tegaloo ni ngi noonu doonte ni nii am na benn mbokk xafizahullah bu doon laaj ndax bu dee dafa rey mbooloo dafay wooral ku nekk ñaari weer na am mbokk loolu la borom xam-xam yi wax dañ ne kafaara bakkan bu nekk kafaara spécial la kon kii rayoon tey juróom benn nit wareef la ci moom ku nekk mu wooral ko ñaari weer yu tegaloo mi ngi noonu ñaari weer yu tegaloo yooyu nag lenn dong moo ko mën a dindi mooy ngay woor ba weeru koor ñëw su boobaa dañ naan la arrêté nga woor weeru koor bi bàyyi bisu it bi doog a continuer islam dana la may boo feebaree nga dog su dee jigéen su nekkee ci règle mu dog su dee tukki la boo xam ne tappale lalu ko tukkile bu munta ñàkk nga xam ne bu doon wéeru koor da nga mën a dog su boobaa it daañ damay nga dog yii yépp bu amul boo wooroon juróom fukki fan daal di bàyyil sa bopp ci ngant amul dañ naan la da ngay recommencer waat à zéro fokk ñaari weer yi day doon lu tegaloo mi ngi noonu loolu nag ñu ngi ci jublu koo xam ne da koo juum daa juum amma ci tey rey nit ki ku mel noonu borom xam-xam yi dañ naan kafaara amu ca koo kay lam def ci musiba loolu kafaara amu ca loolu moom digganteem ak boromam la ci tuub gu muy tuub tuub gu sell waaye kafaara moom yàlla nga ko tëralal ña nga xamee ne nii dañoo rey ca juum donte ne nii bu dee ñoom mazhab malik ñi ñu ne bu dee reyu ñu waaja ndax waaji rey ci tey ko moom manes na koo rey léegi léegi mi ngi noonu amma buñ ko reyul baal ko mu daal di kafaara mooy la gën ci moom doonte ne islam tegu ko kafaara boobu waaye nag negam kii juum la ñu ne na woor ñaari weer yu tegaloo goreel jaam waxuma yow mi nga xam ne yaa tey ci lañ laa baal waaye liñ ci xamle mooy kafaara boobee mu def kafaarawul musib musiba bi ndax kafaara mooy luy far bakkaar bi waa ji juum na rey na nit loolu nga xam ne def na ko ci ak càgganteem ak it mu mën a jur keneen def ko moo tax suñu boroom jël aqam aq bi mooy mu woor ñaari weer yu tegaloo loolu aqu yàlla la beneen aq bi mooy mu goreel la nga xam ne nii moom mooy ab jaam boo delloo ci yeneen boroom xam-xam ñoom daan ca dolli ni su amul kattan pour woor ñaari weer yu tegaloo dafay leeyal juróom benn fukki jaam waaye bu dee lu mel ni mazhab malik ak borom xam-xam yi gise na ñoom dañ ne déedéet suñu borom bi muy wax rey nit ñaar la ca wax goreel jaam woor ñaari weer yu tegaloo amma ba muy wax zihaar mooy ñi ne seen soxna yemale naa la ak sama yaay suñ borom da koo détaillé na goreel jaam amul na woor ñaari weer amul na leel juróom benn fukki miskin loolu kon ñoom ñu ni kafaara bi mi ngi yem ci la nga xam ne mooy koor lam ca man mu def ko ca lam ca mënul du ne ay leel moom moo koy remplacer ci wàllu googe loolu mbokk mi ngi noonu ala kulli xaal wala xel yi gën a jaxasoo su dee am na liñ joteel jàng am na ko amoon lu mu ci bëggoon a laaj incha allah bala ñu jël beneen bind bu bees ci liñ jotee jàng nii mu ne déedéet su wóoroon tey jii ba ramadan ñëw dañ naan noté li fi nga yem wooroon ne vingt jours ramadan dugg na day woor weeru koor loolu moom beneen atte la su weeru koor bi jeexee mu bàyyi bi su it bi amoon ne vingt jours avant mu daal di continuer vingt et un di woor di woor ba ñaari weer yi mat kafaaram doog a mat mais koor gi moom kenn du ko ca boole naam waaw naam mu ne mala waaw malade boo xam ne nii da nga koo jox garab garab bi nekk sabab boo xam ne sabab bu faatoom la loolee boroom xam-xam yi dañuy teqale ki nga xam ni dañ koo xami ci faj ak koo xam ni dañ koo xamiwuñ ko ci faj day tappale képp koo xam ne dañ koo xame ci faj muy faj malaat far malaat ba faatu loolee kenn du ko ko toppe amma ki nga xam ni xamul dara ci faj fekk nit ku feebar mu jël leneen jox ko mu jël ko faatu ngir loolu mu ko jox ku mel noonee dañ koy toppee la nga xamee ne nii mooy musiba ba nga xam ne def na ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bu dee moo ko tey waaw waaw waaw waa ji rey fekk moo ko tey mbokk ki ñuy rey lañ la mën a jéggal mooy am nañu àq ñu rey la loolu lañ la mën a jéggal am nañu àq laaj la diya loolu lañ la mën a jéggal waaye sa problème mooy diggante ka nga rey kookee moom moom nga am problème yowmal qiyaama am problème sa diggante sa borom mi la tere woon nga rey loolee moo tax ba ki rey mbokk julitam fekk na moo ko tey ku mel noonu suñu borom yàlla tëkk na ko tëkk boo xam ni képp koo xam ni dal na la war nga foo toll di tuuba ko toroxloo ko jooy ba baa ngay dajeeg sa borom yonent bi alei salaam da ko boole woon min al muubiqaat mu ne ijtanibu saba al muubiqaat mooy ci leen juróom ñaari bakkaar yuy alagaate lam ca jiital mooy shirk teg ca njabar ñetteelu ko rey nit su ko defee baal ga la mbokk yee baal teggiwul dara sa diggante ak sa borom teggiwul dara ak àq ba nga yoral ka nga xamee ne nii moom mooy en ka nga yoral yawmal qiyaama amma ki nga xam ne moom daa juum daa juum rey bakkan suñ borom yàlla teg na ko ne ko na goreel jaam ku ne xam ne ne goreel jaam yonent bi alei salaam nee na ki goreel jaamu julit day nekk njotam ci sawara mu teg ca encore wóor ñaari weer yu tegaloo loolu yi gis nañu moom àq boobee mu yoral waaja buñ daja yowmal qiyaama it suñu borom dana ko féete woo fayal ko ko ndax jaamu yàlla yooyu mu màgg mu def amma ki rey ñu ci tey ko moom du ñu wax ne sawara la jëm waaye yor na màndarga yi ñuy jëm sawara suñu borom nee na sawara la jëm yàlla dana ko meri dana ko rëbb dana ko waajal mbugal mu mag waaye loolu mooy charte bi mooy bu dee ca tuuba ko tuub gu sel képp ko rey nit dee ca tuuboo ko tuub gu sell ñeenti musiba yu rëy yooyu yàlla wax moo lay xaar yàlla na yàlla musal ñu ci loolu naam naam bismillah mu def choc rey nit dafay dawal oto rey nit ca tayu ko waaw kooku booy kiy dawal oto rey nit ca tayu ko day def ko faara mooy rey na tayu ko su ko defee loolee moom du tey mu def kafaara bakkan bu ne mu defal ko kafaara ndax rey nit ca tayu ko moom mën na nekk multe forme waaye daal bépp bakkan boo xam ne faatu na te yow yaay sababam ca tayuloo ko loolu la suñu borom ni jullit yeyul muy rey mbokk jullitam lu dul ñàkk a tey amma nag bu dee ñàkk a tey gi am na su boobaa nag suñu borom mu ne bakkan bu nekk goreelal ko jaam mi ngi noonu su dee ne amuloo ko nga woor ñaari weer yoo xam ne nii ñaari weer yu tego loola mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah ëmb bi ah jigéen bi nga xam ne dafa yàq ëmb boppam moo ki yàq ëmb keneen ñoo yem bu dee ne bi muy yàq ëmb bi la nga xamee ni nii moom mooy ñeenti weer romb na ko loole nañu xam ni def na musiba bu rëy boo xam ne mbokki ñamam ëmb ba buñ ko yóbbu woon ci loi daañ ko fayloo la nga xam ne muy diya teewul mu ànd aq ba muy yor ak boroomam subhanahu wa taala loolee ñu bàyyi ci xel bu baax naam su ko defee bokk na it dañuy baamu dafa mel ne ci biir wax bi am na fu may wax naan waa ji day goreel jaam woor ñaari weer déedéet mooy day goreel jaam mi ngi noonu joxe diya ki amul jaam mooy woor ñaari weer te mooy suñ jamono tey ji jaam bu ñuy goreel moom xëy na mu des Mauritanie wala feneen waaye ala kulli xaal Sénégal moom xaw ma fi jaam bu ñuy jaay yu ko jël di ko goreel kon képp koo xam ne dafa rey nit la muy def mooy dafay woor ñaari weer yu tegaloo joxe diya famille ba xanaa lu dul famille bi dëppoo ne baal nañu la wallahu aalam naam kon ñu jël bit ñu jël beneen bind bu bees mu ne wa yuqtal zindiqa da zindiq dees na rey zindiq mooy koo xam ni dafa ne jullit la waaye ñu gis mu feeñal ak kéefér te mooy daanaka lu mel ne naafiq rek sorewuñu wala tuqbalu tawbatuhu kenn du nangu tuubam wa huwa allazi yusirru alkufra te mooy que nëbb kéefér wa yuzhiru alislaam ba pare di feeñal islaam wa kazalika saaxir naka noo nit ab njabar dees na ko rey wala tuqbalu tawbatuhu ci kenn du nangu ak tuubam wa yuqtalu man irtadda ila an yatuub des na rey ci génn ci diini ji murtad xanaa lu dul mu tuub wa yuaxaru li tawbati salaasan des na ko yéexee ñetti fan ngiree dana tuubam déet wa kazalika al mar'a jigéen bi génn ci diine it noonu lañ koy jaareeg moom wa man la wa man lam yartadda wa aqara bi salaa koo xam ne nii génnul ci diini nangu na julli day war la wa qaala laa usalli waaye mu ne man day du ma julli ku mel noonu day uxira xata yamdiya waqtu sala salaatin waaxi salaatin waaxida ku mel noonu dees na ko jàpp ba baa waxtu julli benn passé fa in lam yusalliha qutila bu dee julli wu ko ñu rey ko mbokk kii day wax ki nga xam ne dañuy jullit la waaye ñu feeñ ci moom ak kéeféer gum doon laq ba kéeféer ga feeñ mu ne franc-maçon yàgg ñu demee noonu nga xam ni feeñal na loo xam ne moom kéeféer dëgg-dëgg la ku mel nii buñ ko jàppee dañ koy rey te kenn du ko laaj ak tuub maadaama da doon nëbb kéeféer ga ba kéeféer ga feeñ lu mel noonu nit la ñuy wax ci ki nga xam ne nii dafa nekk am njabar njabarkat boo xam ne nii ak njabaram wér na te mooy mbokk njabar dana rey nit njabar dana dofloo nit njabar dana teqale nit ak kam bëgg ila axiri su dee wóor na ne moom mi ak njabaram prouvé nañ ko loolee islam dana nañ ko rey ci li ëpp tegtal ci li borom xam-xam yi di wax ndax dina ko yonente bi alayhi salatu wasalaam waxee moom nag dana kenn du ko tuubloo sax mi ngi noonu maadaama njabarkat la nañ ko rey te mel na Omar ibnul Xataab digle woon nañu rey njabarkat yi ñu reyoon ay njabar yu bëri jamonoom doomam ja Xafsa mas na am benn booy benn mi jaam boo xam ne dañu woon bu dee nañ ko goreel jaam bi dem njabar ko ba mu demee ba mu ci preuve yu leer da koo rey loolu muy won mbokk danger bi nekk ci njabar ak njabarlu sànq bi ma lay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan moytu leen juróom-ñaari bàkkaar yu alagaate daf ne bokkaale ashirk billah wa sihr wa qatlu nafs mooy bokkaale gannaaw ba mu leen jabar gannaaw bu mu leen rey nit ki jël jaasim rey nit njabarkat moo ko gën a bon ca yàlla nga noonu ndax ci jël jaasi rey moom nit ñi xam nañ jël na jaasi rey njabarkat nag ca lëndëm gam nekk ci néegam lay nekk def musiba yoo xam ne nii moo gën a garaaw téeméer yoon borom jaasi ba looloo tax islam ne moom it nañ ko rey gannaaw ba ki nga xam ne daa génn ci diine doomi jurit la wala duggoon na ci lislaam bu mujj mu génn ci diine ci ko mel noonu dañ ko war a rey donc ne bari na loolu suñu jamono yi tey ay maadaama jaasir islam nekk fi da nga gis ay doomi jurit yoo xam ne judd nañu seen bàyyi tudd leen Muhammad jàngal leen alquran ñu dem ba màgg daal di génn ci diine ji complètement ñu ngi noonu donte ne bu ko lislaam jàppoon daañ ko tëj ñetti fan di ko delloo ci yàlla su nanguwul a dellu ci diine ji ñu rey ko lii valable ci góor moo valable ci jigéen noonu it la ñuy jàppee ki nga xam ne dana di julli koo xam ne jurit la yow jurit nga waaw nangu nga ñu yàlla danañu julli mu ne waaw doo julli ah déet man na man moom duma julli ku mel nii mbokk biñ ko téyee ba waxtu bi romb masalan jàpp nañ ko takkusaan jullil mu ne julliwul ba jant bi soo dañ koy rey mu ngi noonu dañ koy rey doonte ne boo dellu woon ci lu mel ne mazhab Malik ak borom xam-xam yi gis-gisinam ñoom dañ naan dañ koy rey ci bakkaar bu rëy bu mu def waaye kenn du ko rey ne yéeféer la maadaama nangu ne ni julli lu war la bu doon da ngaa dem ci mazhab ahmad nag ñoom dañ ni dañ koy rey en tant que yéeféer parce que ñoom mënuñu comprendre nga ne yow yàlla moo digle julli waaw julli ngi nii boo julli lu ñu rey la nga ne julliwuma bañ a rey la te fekk gëm nga li nga wax ñu ne déedéet loolu mënta nekk kon yéeféer la ñaari gisin yooyu lan mooy seen wuute bu dee mazhab malika buñ ko reyee ngir ñàkk a julli dees na ko defal li ñuy defal jullit ñi suul ko ca armeel ya donte ne dañ naan kilifa dëkk ba buñ ca bokk bu imam ñëw bu notable yi ñëw alalamit dees na ko doon amma bu doon ci mazhab ahmad dañ naan déedéet ca àll ba lañ ciy suul ca alalam dañ koy delloo baytul maal muy trésor public waaye kenn du ko doon amma nag boo jëlee bi ngeen bind mu ne wa man imtanaa min zakatin uxiza minhu karha ki lànk ne du génn zakat des na ko jël ci moom ci force wa man taraka alxajja fallahu xasbuhu koo xam ne daa bàyyi ak kooku moom yàlla mooy yor ay mbiram wa man taraka salaata jahdan koo xam ne nag daa bàyyi julli ngir weddi ne julli moom warut jahdan laha fa huwa kal murtad kooku moo ki génn ci diine yem yustataabu salaasa des na ko tëj ñetti fan di ko tuubloo fa in lam yatub qutila bu tuubul nag ñu rey ko mi ngi noonu bokk kon day wax ne kii julliwul sànq wax na la ne dañ koy rey ki nga xam ne am na alal ne du ci génne zakat nag ku mel noonu mu ne état day xeex ak moom ba jël zakat bi te rawatina zakat ba bu dee zakatu mbay la wala zakatu jur la wala loo xam ne lu ñuy gis la état da koy jël ci moom par force su xeexee ñu xeex ak moom ba bu jëree ñu rey ko ci ñu rey ko ca waaye kenn du wax rek ne génnul zakat nañ ko rey dañ koy jël ci moom ci force ki nga xam ne it ajuwul ku mel ne moom dañ koy bàyyi ak yàlla ndax xam ngeen borom xam-xam yi dañoo ixtilaaf ndax at moom day war ci bi nga ko mënee am at yàlla da ko yombal mu nekk benn yoon sa dund boo ko mënee it man ngaa bàyyi ba mu jàppandi rek nga def ko loolu tax at moom kenn du ci xeex ak nit ki kenn du ci force nit ki dañ lay bàyyi ak sa sa borom mi ngi noonu doonte ne ne danger la bu rëy yàlla may la alal may la wér gi yaram nga dund ak loolu ay ati ati at ba dee ci ajo loolu moom musiba la ko defee képp ku yàlla booleel loolu wér gi mat na kattan gi am nga ko ak alal ji ngalla waaye profitol at ba ba balaa yàlla di ñëw ak i biram mi ngi noonu wax na la sànq kaa waa ji nangu ne moom julli lu war la waaye nag julliwut tey nag mu indi la kaa koo xam ne dana moom julli waru ko julli waru ko mbokku ki nga xam ne dana julli bokkul ci diine wala mu ne man kat julli waruma ñoom ñaar ñëpp a yem ku mel nii dañ ko war a woo waar ko loolu it waroon nañu na doon suñu réew la ak feneen fudul feneen képp ku am mbokk boo xamee ne nii yëg nga ne moom kat jullit la waaye nee ni du julli nga la waay ñu woo ko waar ko ne ko diw yàlla day dafa santaani julli sunu sëriñ si mag si fi nekkoon la gën a màgg lañ leen xàmmee mooy jàkka ak jumaa yi ñu fi bàyyi kon kaay nga julli doomu aadama bi bu dee lañ koy mujj defal mooy dañ koy julli diine bu amul julli yàlla musu koo wàcce ci kaw suuf mboolem diine yi fi jaar yépp amul benn bu ci ñàkk julli waar ko pendant trois jours su bañee nag ñu rey ko bii paa nag moom buñ ko reyee mboolemi borom xam-xam dëppoo nañ ne kenn du ko yóbbu ci armée lu jullit ña kenn du ko sang dañ koy jël sànni ko ci armée lu yéeféeri bu fa nekkee wala ñax bu gën a jege ñu suul ko foofee alal jam bàyyi it kenn du ko doon dañ koy jël yóbbu ko la nga xam ne nii moom mooy trésor public mi ngi noonu amma buñ jëlee beneen bind mu ne wa man sabba rasula rasulallahi qutila wala tuqbalu tawbatuhu ki nga xam ne dafa saaga yonent bi yàlla bi des na ko rey te kenn du nangu ak tuubam wa man sabbahu min ahli diya min ahli zimma képp koo xam ne saaga na ko ci ñi ñi amal kóllëre mu yahudi ak nasaraan ya ñu fasanteeg ñoom kóllëre bi xëyri ma bihi kafara mu saaga yàlla mu saaga yonent yàlla ci lu bokkul ak lam weddee aw sabba allaha azza wa jalla bi xëyri ma bihi kafara wala mu saaga yàlla ci loo xam ne bokkul ak lam weddee qutila illa an yuslima des na ko rey xanaa lu dul ne daa tuub dugg ci lislaam wa miraasul murtad li jamaati almuslimin ki nga xam ne daa murtad alal jam bàyyi ay mbokkam dañ ko donn dañ koy jël dugal ko lii di trésor public kon mbokk dañuy gis ne day wax ne jullit bu ñu dégg nga saaga yonent yàlla bi mbokk loolu ak kéeféer la koo xam ne buñ ko déggee dañ koo war a rey bal bu dee témoin am na sax ñooñu buñ ko reyee loi du leen wax dara bépp façon atte loi rek moo am droit rey waaye boo demee ci wax saaga yonenti yàlla bi wala saaga yàlla su dee témoin am na bu dee ña ko fekk rey nañ la loi du leen topp dara ku mel ni ibnu taymi rahimahullah bi ñu ne ci benn téere bu mag tudde ko saarimul maslul ala shaatimi rasul jaasi bu ñu bocc ñeel kuy saaga yonenti yàlla bi saaga yonenti yàlla bi nag mooy saaga ay soxnaam benn lañu wala tax ñay wax lu ñaaw suñu yaay Aïcha rëbbum yàlla day wàcc ca ñoom mu ne kon chrétien bi su dee moom moo saaga yonenti wala mu saaga yàlla ci lu bokkul ak la mu gëm masalan ab chrétien mën na wax ne ab yonent daal ku ne wax ne yonent am na gannaaw isa waxul dëgg ku mel noonu dañuy gis ni tuumal na yonent yàlla bi waaye maadaama loolu la gëm kenn du ko te rey amma bu saaga directement yonent yàlla bi ci lu bokkul ak pas-pasam dañ koy rey chrétien wala juif bi taxaw ne yàlla ñetteelu ñetti ñi la comme nag yàlla waxee allahu salisu salaasa yàlla daal kenn la rek ci ñetti yàlla yi boo ko loolu xam ne lu garaaw la taxaw ne masalan yàlla am na doom loolu lu garaaw la suñu borom mu ne takaadu samawaati yatafattarna minhu ila axiri waaye yàlla am na doom du tax ñu rey cëb chrétien amma nag bu saagaa yàlla wala xas yàlla ci leneen lu bokkul ak ab pas-pasam su boobaa moom dañ koy rey loolu kon di mbir boo xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ca ahzab ni mi ngi koy waajal mbëggalum toroxtaange bu màgg mi ngi noonu kon loolu moom mooy la nga xam ne wax na ko mu ne xanaa lu dul ni waa ji biñ ko jàppee daa tuub dugg ci lislaam ndax ki nga xam ne dafa dugg ci lislaam moom loolee day far mboolemu bakkaar ya nga xamee ni nii jiitu woon na ci moom amma bu dee niñ ko waxe sànq mu ne alalu murtad ku mel noonu kenn du ko donnu dañ koy delloo la nga xam ne moom mooy trésor public naam waa kon ñu jël beneen bind mu ne wal muhaaribu la afwa fiihi ki nga xam ne dafa nekk ci agression ku mel noonu ak jéggale du ca am iza zufira bihi bu dee dañ koo jàpp fa in qatala ahadan fala budda min qatlihi su fekkoon mu rey nit moom fokk dañ koy rey wa in lam yuqtal fa yasau limamu fihi ijtihaaduhu bu bu reyul kenn nag dana yaatu ci imaam mu def ijtihaadam xalaat lan lay def ak moom bi qadri jurmihi ci lu kemuk bakkaar ba waaj a def wa kasarati muqaamihi fi fasaadihi ak yàggaayu taxawaay ba mu taxaw ci yàq gam nekkoon fa imma qatala su neexee imam mu rey ko aw salabahu wala mu daaj ko ca kaw summa qatalahu gannaaw bu rey ko aw yaqta'uhu min xilaafin wala mu dagg loxo ba ak tànk ba ci jàllawle aw yanfiihi ila baladin yusjanu fii yusjanu biha wala mu dàq ko yóbbu ko ci benn dëkk buñ koy tëje xatta yo tuuba bu ba muy tuub naam bokk day wax fii ci wàllu agression ki nga xam ne agresseur la ñu jàpp ko ci agression ba ku mel noonu kenn du wax ndax dañ koy baalam déet masalan fekkoon na rey na nit buur du wax ñi ñim reyal ndax dañ koy reyam déet déedéet loolu mi ngi yem ci ñi nekk ci dëkk bi amma agresseur moom su dee rey na dañ koy rey su dee ne nag nekkoon na agresseur biñ koy jàpp reyul waaye gàññe ki jël na alali ki tiital na ñi yàq na yoonu ñi ah su boobaa buur mooy xool ana naka lay def ak moom su ko neexee mu xool gravité ay mbiram mën na ko rey wala sax mu daaj ko fu ci na salb mooy daaj ko ci benn place ba ñëpp gis ko mu nekk exemple gannaaw ba ñu rey ko wala mu daal di dagg loxoom ak tànkam wala mu daal di koy tëj diir boo xam ne nii jàpp nañ ni dana ca tuub loolu moom la borom xam-xam yi di di wax donte ni teqale boobee ni mu ko tënkee fii rek loolu la am na nag ñoo xam ne dañ ni su reyee ba pare jël alal gaañ ay nit ñu ne ko mel noonu dañ koy daaj dañ koy rey su yemee ca rey ga kese dañ koy rey su dee gaañ ay nit jël seen alal su boobaa dañuy dagg loxoom dagg tànkam su dee musul gaañ kenn musul rey kenn waaye nag tiital ni nit ñi fitnaal ni nit ñi su boobaa dañ koy tëj lu méngoo la nga xam ne nii moom la def mi nga noonu ca wàllu googee kon incha allah ñu jël beneen bind muy def ko suñu bind bu mujj mu ne fa in lam yuqdar alayhi su dee ne waa ji kenn amul kattan ci jàpp ko xatta jaa taiba ba moom moo ñëwal boppam nekk aji tuub wudi a anhu kullu xaqin huwa lillah des na ko teggil bépp aq boo xam ne nii aqu yàlla la mi ngi noonu min zalika ca loolee wa uqiza bi xuquqi nnaas des na ko jàppe it ca aqu nit ña mi ngi noonu min maalin aw damin na doon alal la jëloon wala deret wa kullu waxidin min allusuus képp kenn ca sàcc ya daaminun li jamii ma salabuuhu min al amwaal dana nekk aji garanti ci lépp loo xam ne jëloon nañ ko ci force ci alal ya wa tuqtalul jamaatu bil waxid dees na rey mbooloo ci bu dee dañoo rey kenn fi lxiraaba wal xiila ci agression ak la nga xam ne mooy reyu piège wa in waliya alqatlu waxid waxidun minhum donte ne kenn dong moo ko rey wa yuqtalu almuslim bi qatli zamiyin qatal qatal xiilatin aw xiraaba naka nooñu julit dees na ko rey su reyee zami mooy yahud wala nasaraan bu ñu amal jàmm bu dee da koo rey kay reyu ko piège wala mu rey ko reyu ko agression mi ngi noonu mbokk fii day wax ne waa ji agresseur la rey na fi nit gaañ fi ay nit ñu koy wër kenn jàpp ko ba ñu dégg ne kat waa ji kat moom tuum na bis mu daal di ñëw ci boor daanaka boor man day maa doon agressé waaye bis ni ki tey lii tuub naa dellu ci yàlla su boobaa dañuy gis ni la nga xam ni moom la ko lislaam doon teg ci aqu borom bi subhanahu wa taala ci koor gaag ay gorel jaam yaag yu deme noonu loolu moom dañ des na ku ko teggil waaye ña nga xam ne da leen a tooñ ñuy doomu aadama ñooñu dañuy jël àq ci moom ko defee ña nga xam ne da leen a reyoon buur dana leen woo ne ah kii kat moo reyoon seen bàyyi ñoom ñooy xool lu ñuy def ak moom dañ koy doon di reyam dañ koy doon di baalam dañ koy doon nangam kii moo daggool seen loxo bàyyi loolu yi ala kulli xaal nit ñi moom dañ leen di delloo seen àq amma bu dee benn nit revendiqué wul ci moom dara su boobaa moom buur du ko toppee dara ndax aqu yàlla moom maadaama tuub na dañ koy bàyyeeg yàlla mam ni tuub na jëm ci moom bu jëlee muy wax dëgg la yàlla baal na ko bu dul dëgg bu demee dana dajeeg boroomam mi ngi noonu léegi nag muy wax ci cadre ay agresseur yoo xam ne jël nañu alalu nit ñu bari ñu jàpp leen am ñuñ ca jàpp bu dee am na ñuñ ca jàpp ñeneen ñi rëcc ñooñu ñu jàpp ñooy fay mboole mi alal boo xam ne mboole mi jëloon nañ même bu doon kenn lañ ca jàpp fekk fukk la ñu woon kenn kooku dañ ko fayloo mboole mi alal ja nga xam ne mboole mi jëloon nañ ko gannaaw ba itamit lii mu wax nii waxoon na ko ci kaw mooy bu dee mbooloo agresseur ñoo bokk rey nit su boobaa ñoom ñëpp la ñuy rey ñoo bokk piège nit mu ñëw ñu rey ko ñoom ñëpp la ñuy rey loolu lay wax ci loolu mu ne it jàng nañ ci kaw ne jullit bu reyee chrétien kenn du ko rey waaye mu ne bu dee da koo rey ci agression wala mu rey ko ci piège ko daal di koy rey ngir mën a jël alalam wala aqam wala kaza wa kaza bu dee rey gu mel noonu moom fokk buur dana rey jullit boo xam ne dafa rey rey gu mel noonu te loolu it mbokk islam toujours day teqalee rey gi nga xam ne moom la tubaab bi tuddee prématuré nga xam ne dafa waajal pour rey bokkul ak ci rey ci xeex wala rey ci occasion kooku moom mën na am mën na tey sax rey gi waaye nag circonstance moo ko laaj bokkul ak ki nga xam ne dafa piège nit ki wala koo xam ne dafa dem ca yoon ba waajal ay armam nit ki ñëw mu daal di koy agressé rey ko ñu mel noonu moom beneen lu atte la ñu yor même ña ñuy gaañ bu dee dañoo bale état moom day dal ci seen kaw ngiree jàmm mën a am ci réew mi ala kulli xaal mbokk loolu mooy bind bi yàlla dogaloon ñu jël ko tey ñu ngi ñaan yàlla na yàlla subhanahu wa taala may ñu aafiya yàlla nañu yàlla musal ci agression musal ci suñu njaboot yàlla nañu yàlla musal ci lor benn julit ci wàllu deretam ak ci wàllu deram ak ci wàllu alalam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ki nga xam ne moom mooy Hafsa la chaque ne soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la la nga xam ne noonu la xadis bi tëddee mooy ah Hafsa digle ne ñu reyal ko jaamam boo xam ne da koo njabaroon loole na texte ba tëddee gisuñu ne da koo yóbbu ci loi pour loi rey ko waaye loolu day wañu ne moom moo ko reyal boppam ngir la nga xam ne nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ci joxe woon digal ne xaddu saahir mooy ad darb bi sayf lu dul ne cosaan mooy benn citoyen du reyal boppam daf ko war a yóbbu ci loi kon digle nañu rey ko mën na nekk dafa digle ña nga xam ne ñoo yoroon loi ñu rey ko loolee mooy gën a dugg xel que rek mu rey ko fekk ñu yor loi reyuñu ko à chaque ne Hafsa fekke ne papaam bi mu nekkee amirul muminin wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw waaw ala kulli xaal karawoo xale liir rawatina africain moom lu ci bëri ay deux trois grammes lay tourné mën na koo yées sax lu bëri ba nga xamee ne maadaama dañ ne nañ ko calculer ci xaalis comme xadis yi ca gën a siiw loolu la wax bu doon da nga sarxe mille cinq cent loolee dana doy ndax da lay leer ne la nga buñ ko doon jënd xaalis piir dana ëpp karaw googee loolu donc du jar naan da ngay jël karaw gi di ko peser ndax xam nañ ne du ñëpp ñoo am kattan di dem ci ab tëgg di peser seen karawu doom wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam da doon kaf waaw doon xëbal far far tiire ko waaw waaw ala kulli xaal loolu nañu xam ne yii ñuy wax yépp ay atte la bépp jëf bu ci am attekat bi mooy déglu nit ki xool ba xam li muy wax soo dellu woon ci borom xam-xam yi rey dañ koo def ñetti façon mooy alamd waa ji tey na ko shibhul amd lu nuroog tey ak alxatu loo xam ne nii waa ji daa juum su yooyu yépp nag attekat bi moom mooy xool ba xam waa ji ndax lii mu def nii ak tey la wala njuumte la wala lu nuroog ak tey la waaye du tey loole moom mbiri atte la wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam ñàkka waaw waaw waaw waaw kooku bu dee ne bu doon atte islam am na fi maadaama atte islam amu fi li fi des mooy laayi biir képp koo xam ne am na mbokk bu mel noonu ngalawaay nga di ko laayi biir yàlla dogal na benn dëkkandoo yu ñu amoon ki nga xam ne mooy soxna si ñu layu ko biir ba mu commencé di julli bi muy julli borom këram teqali ko ak moom da ko bis tànk yaa ngi julli bul duggati sama néeg ba noonu lañ teqali ko loolu kon da ngay gis ni bari na ñoo xam ne du ñu julli fekk dañoo xamut waaye bu ñu leen laajee biir mën nam ñu dellu gannaaw soxna soosee bi muy commencé julli passé na 60 ans mi ngi noonu waaye noonu la def ba teqali koog borom këram ba sànq ak soo bi ci ngoon ngiree julli mooy la dox seen diggante su ko defee daal képp koo xam ne am nga mbokk mu jàpp ne moom wurtu julli galawaay woo ko waxtaanal ak moom laayu ko biir loole yàlla mën naa def mu dellu gannaaw wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal waaw bismillah naam naam naam yonent bi alayhi salaam moo ne digal nañ ma may xeex ak nit ñi ba baa ñuy wax la ilaha illallah waaye suñu borom moo wax ci alquran mooy xeex leen ak ñoom fa in taabu wa aqamu sala wa aatu zakata fa ixwanukum fi ddin diin lislaam duñ ko jël ci benn nusus rek la ilaha illallah dana dogal nit ki ci lislaam waaye dafa am ay ponk yoo xam ne mooy tax nit ki sax ci lislaam dëggal la ilaha illallah boobee loolu moo tax ba lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne la ilaha illallah caabi la waaye caabi boo gis daa am ay bëñ am déet mi ngi noonu su ko defee ki nga xam ne daf ne la ilaha illallah waaye julli déedéet man duma julli koor déedéet dama koor kooku la ilaha illallah boobu comprendre ko looloo tax mooy dañ koy dëggal ba nga xamee ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu doon wax loolu nañ digal nañ ma may xeex ak nit ñi bañ wax laa ilaha illallah suñ ko waxee kii nañu musu nañ ci man am na beneen xadis bi wax naan digal nañ ma may xeex ak nit ñi ba ñu wax laa ilaha illallah ba taxawal julli ba génne zakat ñetti yi de buñ ko defee seen xisaab léegi ma nga ca yàlla mooy comme liñ jàng sànq waa ju tuddul koor waaye tudd na la nga xamee ne ni moom mooy zakat bi ak la nga xamee ne ni moom mooy julli gi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah naam ah bismillah naam xale bi nga xam ni dafa dem bay waaj a majeur mu ne man kat gëwuma lislaam ku mel noonu dañu war a naxante ak moom di ko waar di ko delloo ci diini amma bis boo xam ne majeur na mu taxaw ne gëmuma lislaam ku mel noonu dañ naan daa murtad bu fa jaasu lislaam nekkoon dañ koy rey amma xale kenn du ko rey xale dañuy naxante ak moom lay ko biir waaye bis bu ñu demoon ba yëg ne majeur na gént na am na lu jóge ci moom gis nañ ko sikkim gis nañ ko karawi naq wala yu demee noonu mu taxaw nag ne man génn naa ci diine fi ñuy jaar ak ñuy jàng jàng sànq lañ koy wax dees na ko tëj ñetti fan di ko waar di ko tiital su saxee fi mu sax dañ koy rey loolee mbokk mi ngi noonu loolu ndax yéeféer moom bu ko neexee sax fee ca yéeféeram dund ca lu ko te neex islam du ko wax dara xanaa lu dul ñu daje ci toolu jihaad amma doomi jullit daa judduwaale lislaam heure bu demee ba yàgg mu wëlbati ko ne man génn naa ci diini ko mel noonu dañ naan daa murta dañ koy dañ koy tuubloo bu bañee dañ koy rey mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi ah naam mi ngi noonu mbokk kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla dépp la ñu ak ngërëmam tontu yi la ca jub yàlla jàppaloo ñu ko la ca njuum te it yàlla na yàlla xamal ñu ko ca moytuloo ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain